palaasu tafsir boo xam ne oustaz Oumar Sall moo ko def ba muy def tafsiru alquran boobee di ci wan ne moom du dem ci niti bidaa yi ci nam ko tuddee moom moo xam ne teg bidaa man xaw ko daf ci adressé ne fii ci groupe bii ñuy liggéey muy Escaf dafa amoon oustaz bu fi nekkoon ñi daa ko tuddee Alioune Gueye yàlla na ko yàlla yërëm benn bas fa ko yebaloon reportage ci niti bidaa yi mu bañ mu dàq ko wax jooj laa wax ne du dëgg demeewul noona parce que wolof na na maa fekke bakkan lay laaj wax ja man mii di wax ak yéen fekke naa ko wax ja juróomi nit la concerné ñett ñaa ngi ca àllaaxira ñaara nekk ci àddina Oustaz Alioune Gueye yàlla na ko yàlla yërëm Ibrahima jaañ benn baas yàlla na ko yàlla yërëm sëriñ Kosso Mbacke Astuloo yàlla na ko yàlla yërëm ñett ñii la wax ji concerné Serigne Kosso Mbacke Astuloo dafa doonoon xaritu benn baas Diagne di organiser ay ndogu Sarsara bi mu organiser ndogu yi Sarsara mu tombeeg yawmul xamis benn baas wax ko na ko rajo Dunia dana la ko jëlal en direct booba rajo Dunia moo fi nekk ci jamono yi ak Zid FM dikk wax ko Aline Gueye nag comme yow la tombeet yaay def émission Aline moo daa fanaan bis boobu di def émission bu ñu tuddee Nourun ala Darb muy commencé minuit ba 5h30 ak i benn baas wax ko na ko comme yaa fi nekk nag bu minuit 30 jotee jëm une bu ñu la wooyee leen antenne bi dem sa yoon mu d'accord wax ja jeex kon benn baas musta yebal Alioune Gueye reportage ndax Alioune Gueye daawu defi reportage reportage Abdoulaye Lam moo ko doon def ak ñoom Adi di ñu fa nekkoon loola moo xew-xew bi bi yàlla dogalee heure bi jot ñoom ñu woo sas Alioune dugalu leen ñu siisir benn baas këram mu taal otoom ñëw këram ci ancien bâtiment ba dugal émission bi gars yi continuer def seen ndogu yi sarsara bañ yaa ba ñu yàlla mayee panaanam jàmm ca lan demee ga Alioune Gueye na bàyyi na histoire bi nii la demee bi Aliou Ndeye bàyyee nag benn nit ci ustaas yi wala ci mouvement islam kenn kese moo ca dox doxab jéego war ca waroon ca mën a wax muy ustaas Ibrahima Kane ku ko mooy doxoo ca waxoo ca waaw ku ci doxu doxoo ci nag ku xam ne gédd na àddina bu yàgg ñaanal ko yàlla moo war nan nga mën a jëlee ay mbir di ko teg ci kawam tey ne moo wax nangam toxu ko alaaji ustaas alaaji Ibrahima Kane moo ma fekk fële ci bat ancien batiment ba ci école ba na dama bëggoon ku négocier oustaz Alioune Gueye pour mu dellu si def émission ndax émission bi am na solo pour jaami yàlla yi ma ne ko négociation ne danaa koy defal nit waaye dafa fekk borom bëgg ko mu ne ma xaaral ma dem wax ak moom jógee ko fi dem wax ak moom dellu si na ma d'accord na oustaz Ibrahima kan mi ngi may dégg moo ma wax lii na ma wax naa ko na ko boo seetee temps de antenne bi nga yore li nga ci mën a defar ci ay doomu aadama boo doon def ay conférence mënoo ko def bañ d'accord ma dem négocier ak benn baas mu si ko joxaat ko émission bi mu doon def alxames mu des bi ñu war a fanaan mu joxaat ko émission bi kon mu des tafsiru alquran bi fekk diggante bi Alioune Guèye bi mu fi jógee Alioune Sall ñëw na fi mu continuer ci loolu ba Alioune Sall dem si FM mu continuer ak tafsiram wax ji nii la dalee la ko dalee ci lu sori ak lu jege nii la wax ji tëddee leneen amu ci nag li Oustaz Omar Sall wax ne dañ ko yebaloon reportage ci nit yi bidaa yi moo bañ ba mu dikkee benn baas ko xaw ma mu ko man duma dem loolu yëpp dara amu ci. parce que même bi Aline Gueye jël seet fii sax benn baas toogutul Aline Gueye man maa toog Ibrahima Kane mu wax ma ma dem toog ak benn baas mu ne na del seet ma wax Ibrahima Kane mu del si nii la demee waaw léegi nag ku toog tin ñi may wax lu ñu loo xam ne fikki woo ca dara la min qaribin wala min baid te fàtte na ne ñi muy waxal borom rajo bi ak ñu fi doon liggéey ñi ngi dund kenn déyegut bàyyi ndaw mii fi la ko fekk man mii fi la ma fekk keneen fi la ko fekk Ablaye laa mi ngi dund yaa man daal bëggoon naa ak ñoo mën di tuddee nit yi daa yow yaa xam nit yi daa man xaw ma ko mais xam naa ne xala mari taarix ci histoire islam kuréel bu ñu tuddee nit yi daa amu ci kuréel bu ñu tuddee nit sunna amu ci lépp lu ñu fi sos la taarixiyan loolu du débat bi mais dama doon jubbanti luñ mel rek tey euh, oustaz xaali euh, ñu dëkk ci suñ jotaay euh, dafa jaadu comme luñ wax la ci antenne yu tasaaroo ci réseaux sociaux yëpp te ñun fii suñu antenne la ñoo fi toog di liggéey te li mu wax kër gi la adressé ma doon chef de desk islamique bi aw ma ngànt pour ñàkk ko teppi wax dëgg yàlla gannaaw boo nuyoo bokk yi bëggoon nañ eh, nga yóbbaaleen ñu laaj bu njëkk bi bëggoon nañ ku ñu leeral la lan mooy attee xatmul quran may yool bi nit koo xam ne dafa génn àddina dama bi ma jullee fajar ba pare man saa bu ma jullee fajar ba pare dinaa toog presque une heure une heure une heure trente sept heures doog a tëdd nekk ci samay azkar ba ma paree alhamdulilah def li may def ci samay awqaaf ak yu demee noonu bi ma ko defee ba pare ma fàtte na comme téléphone bi dama koy fay boobu fayuma ko woon mu am ku ma woo xam naa ko bu baax su ma soppe la bi ma woowee ne ma damaa dégg lu Cheikh Tidiane bi tey wax ndax dégg nga ko ma ne ko déedéet dégguma ko de mu ne ma ah, daf la doon radd de ma ne ko Cheikh Tidiane bi tey radd ma man Oumar Sall mu ne ma ne ko yaakaar ma ko mu ne ma waaw xam nga yow fu ñu toogoon di wax ci bi rek nga taxaw di ko défendre ma ne ko ba tey position boobu laa am billaahi ladi laa ilaha gayruhu xaw ma ëllëg luy am mais yowmal qiyaam du ma taxaw ak Cheikh Tidiane bi tey yàlla ma àtte ci moom lan moo tax parce que rus naa wax ci moom lu tax yàlla moo def duniyaa ba mu jeex ñaar ñooy ñi ma fa gën a sopp mooy Alpha Diallo Alpha Diallo moom depuis avant muy dem dunyaa li ñu seet xam na ko xam naa ko à part Alpha Diallo Cheikh Tidiane Bitèye fu ma toog ñuy wax ci Bitèye dama koy défendre mais man yàlla dimbali ma man duma ma jëw alhamdulilah maa ngi ciy sant aw ma temps boobu sax di wax ci ginnaaw ne duma ko def. mu ne wax na ci yow nangam ak nangam ma ne ko ah looloo tax démb bu léegi bu ma ubbee sama whatsapp ay saaga laay gis ñu may saaga. duulkat bi fenkat bi nangam nangam bi tey ne nag wax billaahi lazi laa ilaaha gayru dama tiit ma ni ah mu ne ah man tàmmuma di seetaan internet tàmmuma di seetaan yooyu man nit bu defee yenn radd damay bàyyi noonu rek xam ni noonu la gisee peut-être mais ma toog ba ay 10 heures ma jóg bi ma jógee ubbi Facebook yem ci Cheikh Tidiane bi nee na man lay tontu ci tafsir bu ma defoon. di wax lu ma Aline Gueye waxoon man ak moom Cheikh Aline Gueye alayhi rahmatullah ndeysaan dafa mos am xew-xew ci benn bërëb patron bi yónni ko ne ko dama bëgg a dem nga def couvrir nga nga couvrir bërëb boobu mu ne ko mënumaa dem ñu ne ko lan moo tax mënoo dem mu ne ko mënumaa dem parce que gëwuma la ñuy def te lu ma gëmul ne la ñuy def baax na duma ko siiwal mu ne ko noo du da ngay liggéey ci man maa la sant mu ne ko waaw damay liggéey ci yow waaye nag du ma def lu yàlla tere mu ne ko lan la yàlla tere mu ne ñii dama gëm ni li ñuy def yàlla da koo xaraamal dama gëm ni li ñuy wax du dëgg ndax sama diine du ko wax alquran saxal ko kon duma dem di leen tendre micro duma ko def ñu dàq ko yow nit nan nga mën a weddee lu ñaar waxante te fekke ko loolu du dëgër fit moom bu liggéeyee ci yéen man ma seen rajo tudduma dara dama ne Aline Gueye yàlla na ko yàlla yéenam wax lim ma wax moom fa mu tontu fa mu jëmale wax billaahi ladi laa ilaha gayruhu du loolu wax du foofu laa wax it nag fa mu jëm ay sëñ ko sa mbaag wax a wax wax ne du woon loolu de kon dafa waroon mu laaj ma lan laa wax man ci li ma wax te it nag ragalu ma nag man ku ma xam war ngaa xam ni ragalu ma ndax man lu may wax dama koy wax ci diggu jumaa mbaa ci mbooloo ñëpp di ko dégg du ma làqatu aw ma tiit kon buté yi aw ma lu may tiit ci moom dama ko respecté nag en tant que nit dama ko respecté en tant que li ñu séq ma nag moom ndax saa bu ñu taxawee jàkkaarloo dañuy gaf ree loolu la ñu séqoon ci dunya mu ne ma kañ ngeen di déggante ma ne ko ah, ci weer la toll de Cheikh Ndiaye ngi nii du ma weddi bi tey woo na ma invité ma benn émission ma ne ko amul benn problème yàlla dogal diggante bi ma am empêchement mais ma ne ko woowaat ma peut-être woo na ma jotu ma xaw ma nag luy ngànt mais dafa fekk man jàppoon naa ma ci lañ gëj a wax ci weer la toll moo ma woo wax ma ma ni ko amul benn problème mais woowaat ma diggante bi xëy na jotuma mais bu demee euh, bëgg a weddi man li ma wax su yàggee dafay dëgër fitt te bëgguma bi tey dugg ak man ci ci ay domaine u xëccoo bëgguma ko bi tey wallaay bëgguma ñu àgg foofu man ak yow parce que dama dama la respecté bu baax nag mais nag xamal ni du ma ragal nag lu ma bëgg a wax mën naa ko ñeme naa ko dama la jox cër jox ma moo gën quoi suñu diggante ne rafet moo gën man loolu laa bëgg parce que maa ngi koy rafetal li ma mën billaahi ladi laa ilaa gayruhu bi tey mosumaa wax ci yow benn kàddu bu ñaaw te duma ko def mukk rus naa ko ndax li ñu séq waaye nag moytul ko parce que lii baaxul wax ci nit yóbbee ko ñu koy saaga di ko wax yu ñaaw yooyu moom na ko moytu duma la topp nag duma la ci topp mais li may wax ak li ngay wax sax bokkul li ma Aline Gueye wax du côté bi nga wax ci beneen côté la xëy na yaa ko xamul danga maa waroon laaj olof nag day wax lu solo nee na guuxi mer bu la taxee denc mer koo xam ne xamoo kañ nga koy tontu surtout ñuy toj ku ma ci mere sa problème la waaye booy tontu nit fexeel ba nga am argument yu leer am maa ñi may saaga ak ñooñu man loolu miin naa ko ay saaga du sans problème ay dangay fen dangay nàngam man ku may wedde ci ay texte nga may weddee ndax yi may wax dama koy wax ay aaya ay xadis laay indi kon nag vraiment respect boobu laa bëgg mu dox suñu diggante moom laay ñaan nag moom laay ñaan bugguma ñu ñu àgg fenn fi daal très sérieusement bugguma ko man du ma tontukat du ma tudd tur tey laa mës a tudd tur tudd ko moom comme moom Cheikh bi Bitèye la tax kii ma woo wax ma mu dëgg dégg mu wax tudd sama tur mais man ku dégg may wax du doo dégg may tudd tur du ci sëriñ si xanaa bu ma tuddee tur ahlu sunna bu ma bokkal passeport te yaakaar ne ñoo bokk passeport laay tudd tur ma ne Aline Gueye wax na ma wala nangam mais kenn du dégg ma tudd turu kenn ak loo munti wax kon nag loolu laay ñaan bëgg naa mu demee noonu am maa ñi may saaga di ma fen fenloo <laughs> ñooñu moom ñooñu seen problème waaye billaahi lazi laa ilaaha gayru lii ma wax Aline Gueye moo ma ko wax génn na àdduna génn na àdduna nag yow amoo seede man aw ma seede nañu xaar ba àgg ci yàlla sa weddi tee mu am yow sa weddi bi tey mëntatee li ma wax am te billaahi lazi laa ilaaha gayruhu nii la ma ko Aline Gueye waxee te xam naa Aline Gueye du fenkat xam naa ko ni ma la xamee nu ko raw laa ko xamee ndax séqoon nañ ko nag maa ngi bàyyi fas mbir fa yàlla di xaar am na loolu nag bugguma ko yóbbu ma ci bu ma ci yóbbu mukk soo ma ci yóbbu rek mun naa indi jafe-jafe te loolu baaxul bugguma ko